awsubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom tuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñuy ñaanalee cheikh mahamadul muntaxa ibnu cheikh bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanalee baax a baax maam cheikh ibrahima fall sëriñ am di moodu mbenda di ko ñaanal mbooleem njabootu borom tuba gépp ak mbooleem njabootu cheikh borom tuba yi waaye di ñaanal bu baax a baax jàmbaari sëriñ tuba ji seydina am sotu mbakke moom sëriñ Chouaïbou bu ngeen gisee fii nu taxaw nag ngeen xam ne ñoo ngi ci liggéey bi nga xam ne Serigne Mountakha sant na ko ki nga xam ne mooy Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Chouaïbou muy bisub xasida bi nga xam ne war nañ koo amal fii nga xam ne mooy ci jumaa ji ci bisub altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2022 bi nga xam ne ci la ñu nekk xam ngeen ne nag Serigne Amsatou Mbacké ku ñàkk sagalo lool ci jot ndigal ci kilifam waaye rawatina Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadoul Bachir waaye rawatina li nga xam ne moo di ak pàccam te mu def ci yitteem yëpp ci liggéeyal ci borom Tuba mu ci xasida yi booba ba nag xam ngeen ne Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou mi ngi soññu njaboot gi fépp gi ci njiital Serigne Cheikh Ahmadou mbake ni nga xam ne noonu la ànd ak mboolem mbokki taalibe bi yëpp gis ngeen fi ñu toll nag tey ji ci ba gi ginnaaw bi nga xamee ne julli nañ timis ba léegi la mbokki taalibe yi nag nekk ci li nga xam ne mooy liggéeyu Serigne bi mooy fas yéene nag taaral ngir Serigne Mountakha am li nga xam ne moom la bëgg ci moom nga xam ne booba ba léegi ñi ngi ci baasi di ko taxawal noonu ci liggéey bi nga xam ne mbokki taalibe yi ngi ci di rek ngeen daje ci ak li nga xam ne mooy tawféexuk seriñ bi ginnaaw bi ñu nekkee ci liggéey bi nag ab diir bu gàtt ngeen gis sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ bu ñor gi ko liggéey bi ñor waaye ñor gi ko ndigal ñor waaye ñor gi nga xam ne moom la ko xaside Serigne Touba yi ñor gis ngeen mu dagg yi téem ñëw fekk si ci nga xam ne mooy mbokki taalibe yi ci liggéey bi nga xam ne moom lañ cee amal te mooy tàmbali liggéey taxawal li nga xam ne mooy baas yi ngir fii nga xam ne mooy ci penkub jumaa ji ñu fas yéene fee amalee li nga xam ne mooy ndigalal sëriñ bi waaye ci njiital sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou nga xam ne fii la koy amalee moom ngir dundalee fi bi ak mbooleem kuréel yi nga xam ne danañ fi nekk di ci jàng ak yenn ci rajaskat yi nga xam ne fas yéene nañoo ànd ak moom wéttali ko waaye mbooleem duruskat yi waaye tamit sëriñ Amsatu Mbàkke di ci soññaat eh, pëstéef gi nga xam ne moom la ciy doxee ngir ñàkk gim ci ñàkk soxo sago te xam na ne mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci liggéey bi ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi safoo xasida yi sago googu la ñu ñàkk ci xasida yi waaye sago googu la ñu ñàkk ci li nga xam ne mooy ndigal bu xasee ju ko rawatina mu jugee ki nga xam ne moo fi nekkal cheikhul xadim mu cheikh amadul muntaxa sëriñ Amsatu Mbàkke tamit di ñaan ñu ñaanalal ko cheikh mahamadul muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba am li mu bëgg ndax nee na it bu sëriñ bi amee li mu bëgg rek nun taalibe yi sunu aaju jëpp faj ngir xam ne dinañu amul li nu bëgg loolu nag mooy liggéey baa ngi di fii la ñu toll tey ci àllarba gi mbokki taalibe yi nekk ci fas yéene cee fanaan ñoom it jaay seen nelaw jaay seen yitte lépp saxal ko ci fas yéene li sëriñ Amsatu Mbàkke santaane te bëgg ko te mooy tëw tawféexu ko sëriñ bi mooy sëriñ bi am li mu bëgg boobe ba léegi ci loolu la ñu nekk moo tax boobu ba léegi kenn ku ci nekk bàyyi ak jotam bàyyi léppam nekk ci li nga xam ne mooy liggéey bi ni ñu nga xam ne moom lañ koy taaralee booba nëga di waaw koy mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy ànd ak ñun ñu fas yéene leen a dégtal lépp loo xam ne dina am ci waajtaayu bis incha allahu rabbi fii la ñu tollagun tey ci àllarba ci waajtaay wi nga xam ne ci la ñu nekk tey nag ñu fekk si ñi nga xam ne ñooy commission base bi ñoo ngi ci boobu ba naga ni di ko liggéeyee ak cawarte waaye di ko liggéey ak expérience boo xam ne moom la leen sëriñ bi jàngal ci loola rek la ñu nekk kon ñu dikkaat ak yéen ci yeneen i jotaay ci yeneen i vidéo incha allahu rabbi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu سقف البقاء بي لي فيك يلاوم باسم الإله اكفل الأكدار يلاوم سقف البقاء بي لي فيك يلاوم